set Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et set rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor te xam na nag comme yàlla la te yàlla moom du jox kenn kenn compte rendu hmm. Hmm. et que ça bu ko neexee jël kam bëgg a jël te noonu ko bëgg a jëlee ak noonu ko bëgg a jëlee hmm. amul garab amul bu doon xaarañu xaar lii amul comme ni ko coon waaye woon rek amul pardon c'est-à-dire amul xaarañu xam nga donc moo ne woon demal maa ngi ñëw te bi mu ko waxee boobu ba léegi nii ñu bari dem moom euh, ma maa ngi ñëw gën a tontu. moo tax am na moo tax moo mu dem wuyu ji ñooñu comme maa ngi ñëw. mais Omar encore une fois euh, sant rek. Mm-hmm. sant lool lool lool lool micro yi ñu ma tàllal te waxuma bari na. dëgg la yow sañu ma bañ wax. même kër gi laa bokk. waaw yow. kër gi. waaw mbokk laa ci kër gi gi. maa lay giñal ni. Mm-hmm. suñu papa. Mm-hmm. mag. xarit yaay moo dem ñu ñu loolu nag ñu uh-huh. bett ñu lool de bett ñu métti mm. mais boo xoolee ñi ko gunge ak ak ñi nga xam ne tey yenn wuñ ci jàmm mm-hmm. da nga jël sa xel suñu borom rek te xam ne uh, ñooñu yàlla nga xam ne yàlla def na uh, coon coon toll leen foofu muy muy mbirum suñu borom dañ koy delloo sam suñu borom gannaaw 66 ans la am. te allahu dégg naa mooy 60 mooy 66. Mhm. rafet njort. waaye maa ngi lay géñal ne ku baax ku am personnalité ku diiñ mhm. ku am diine. bëgg Seydina Muhammad Rasulullaah dem na jullit piir dem na akkan mhm. xam nga li ma lay wax xam nga dégg waaw wax dëgg yàlla donc te euh, bi ñu tuur tànk ñun ba toll nii dépense ba ba léegi mooy dem. Mm. moo mos a yor waa kër moo mos a yor waa kër bàyyam. yor ko yor waa kër ndeyam war ko ñu bokkal ndeyam bàyyam. donc jël naa ko jële jële jële jële jële jël ba kenn di ko jëli. Mm. Ah. mais yàlla baax na yàlla baax na donc euh, wax naan daal Omar. wax ji daal jërëjëf Kéba. TV. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér